محمدي ذا خدمة للمصطفى محمدي وجاد كل الودود سمدي ذا خدمة للمصطفى محمدي وجاد كل الودود سمدي ذا خدمة للمصطفى لله بذكر الحكيم القليل ما نبي ولد عبد المطلب بدد لي سمات القاسم نبي بداي مصطفى بن هاسم لجاد ربي بالوالي قد انا بالمنتقى المتقى Cheikh Mouhamadou Fadal Kébé mu nekk euh, euh, directeur bu agriculture bu Mbacké nekk en même temps chef religieux ñëw fii nag euh, ci Daaru Naïm fekkee si tijjite jumaa bi nga xam ni monsieur le maire Cheikh Bara Gueye mi ngi ko doon amal ak ki nga xam ni moom mooy si Cheikh Aliou ak mbooleem njabootu Cheikh Moustapha gi xam naa ginnaaw bu ñu julee ba pare nag lenn ci ay témoignages waaw kon ñi ngi muslu ci seytaane tey ñaan yàlla mu musal ci jullit yëpp ñi ngi sant borom bi tabaraka taala tey julli ci yonente bu tey bi sallallahu alayhi wa ah, ni nga ko waxee rek ñun kër gi ñi ngi fi bëgg a yàgg ndax eh, Cheikh Bara Gueye mi nga xam tey mooy tey meeru dëkk bi eh, sëñ Aliou Mbacke mu baax mu moo ñu boole woon te boobaak léegi fanweeri at yi teg na ndax su ma juumul juillet la woon wala août 1991 ba tey ah, yàlla dogal boobu naa ngi Jurbel ba ni ma fa jógee yor agriculture bu njabootu sëñ Aliou yëpp nag li tax ci taaw bi sëñ Cheikh ba ci suuf ah, bari ci ñoom jaxasoo na sëñ Aliou ndax dafa am nu mu doon taxawee ci njabootam ci taalibe yi ci dëkk bi yëpp su ma nee dëkk bi nag yamalu ma ko daaru neem tund yu yëpp képp koo xam rek yaa ngi doon dund ci tund yi am na noo meloon ak sa ñaar am na nu mu taxawoon ci yow taxu ko sa njaboot ah, di xiirtal ñëpp nañ ci jaamu yàlla di xiirtal ñëpp ci liggéey loolu nag ñi nga xam ñoo ko fi wutu muy ci wàllu kilifteefa muy sëñ Cheikh mi nga xam mooy mooy mooy mooy mag tey di taawam muy Cheikh Mbaare Gueye mi nga xam ne tey moo nekkoon jëwriñ sëñ Aliou féeteeg moom ti lépp te liggéey ba mu yoroon Ah, bi yàlla dogalee mu jóge fi moom Cheikh Bara moo wóyal liggéey boobu di ko yaatal ba ak si fi tey euh, man naa wax ni sax euh, commune bi tey di Daaru Naim bi muy taxaw so bay sotti soog na sëñ Aliou laq ndax sëñ Aliou 98 la dem te su ma juumul ci 99 ci lañ soog a commune bi li ñu ubbi tey nag muy juma di lu rëy nag di lu rëy di lu rëy ci wàllu diine ndax ñun nga xam ni loolu at ñu ngi koy ñëw ci dëkk bi daan julli ci jàkk ji fii buñ demee ba ci penc mi la ne jumaa nekk jumaa ju mucc ayib mel ni kon njaboot gi sëñ Aliou bàyyi ginnaaw tànk yi sëñ bi taxawoon ah xam naa sëñ bi bu dab ko dana jafe waaye mel ni ñu ngi cay góorgóorlu ci wàllu liggéey bi mais tam ci wàllu diine ji looloo indi tey jumaa ji sotti tey ba ñu ñëw tey di ko di ci julli julli bu njëkk